rek sama baat moo il faut moi jege pour wax voilà assalamu alaikum. ngi nuyu ñëpp c'est Papou la mascotte des équipes nationales du Sénégal et RAF rafetlu invitation bi nga xam ne tey collectif des clubs nous ñoo ko invité ñun le deuxième les mains propres nga xam ne tur day niru lañ koy wooye ñun nag dañu yàgg supporter Sénégal di topp Sénégal ci combat yëpp bàyyiwuñu football bàyyiwuñu basket bàyyiwuñu handball bàyyiwuñu karaté maanaam Sénégal ci lu mu woote rek ñun suñu ngëm-ngëm suñu devise mooy dem taxawoo ko ci defe naa ne am na ci ñun ñoo xam ne def nañ vingt ans ñu ngi topp li nga xam ne moo di Sénégal ci terrain bu ne nag ci àdduna bi fu ne ñu dem fa man mi nga xam ne yàgguma ci rek defe naa 2012 mooy sama premier voyage ak le Poutine Gaye diggante 2012 ak ak léegi rek def pays dans le monde trois continents Europe Asie Afrique et sommes au Sénégal Nous avons am ay aussi ay un bon supporter se toppee équilibre bu gagnerait

bu dee tamit joueur bi boo galvaniser moom performance am day gën di yokk léegi nag loolu ñun mooy suñu option dama koy faral di wax un supporter supporter amul c'est-à-dire un supporter yow support nga un support nag mooy lan yow da nga ñëw téye benn soow war a mu dem d'abord de soi d'abord

dañ naan ah douzième gaynde bi ci or ñëw ci jàmm fekk ci ay de classe mais yàlla def na ñi nga xam ne aussi président Macky Sall ñëw na jël nañ ñu fi pour di ñu yóbbu ci confort yu baax mais soo jëlee nit ki yóbbu ko ci confort bu baax bo mu nekk koo xame ne moom la nga koy jox yëpp yéenewu Qatar dama leen di jox rek bu gën a terre à terre Qatar bii mujj douzième gaynde déplacé wu na commission culturelle bi ñuy tëgg am na ci ñoo xam ne dañ daan tëgg ba six heures du matin ñu jóg pour xejal ñoo xam ne dañuy ñëw remplacer leen ci law am na ñoo xam ne fauteuil yi ci lañ doon fanaan am ñoo xam ne ay chaise la ñu rangale tëdd ci loolu yëpp ci mën naa joxe les images am naa image te pourtant nit ku nekk ñu ngi ko doon état mu ngi ko joxoon cinquante euros par jour nga xam ne moom nga waroon di lekk añ sa añ sa reer sa ndécc mais ñun ñu nekk président boo xam ne moom il a préféré créer ci réew woo xam ne mënoo faa togg mbala moom mu togg lu fa mbala pour cinquante euros yooyu nga xam ne moom la ñu waroon jot nga xam ne dañoo àndoon ak suñuy nawle. muy Alekaza muy gi ñooñu dañ nem ñu doon jox seeni 50 euros par jour dama bëgg calculer 50 euros 16 jours pour 100 personnes 100 personnes yooyu ku nekk euros par jour yow nga kar loolu di ko sa bopp ne yow loolu dépense boobu da ngay togg ay mbana yoo xam ne midi ceeb bu lii lay doon nit ñi lekk ko nga téye nit ñi ba jour bi nga xam ne toog nañ dañoo war a ñibbi ci jour bi dix-huit heures yow soxoree nga sax jox nit ñi dara nit ñi ilaa a yi ay problème nar am nga doog a dajale ku nekk nga génne trois cent euros jox léegi li des ci loolu lépp kenn mënu laa wax ne fii la dugg wala fii la dugg loolu benn la ñu nekk ak président boo xam ne mon moy taxaw ci télé yi di wax ne mom 2012 lañ ko fal 2009 la 12e gaynde man moma dalal 12e gaynde en tant que président 12e 2011 je suis euh 12e gaynde Mali mom moy taxaw ci télé 2012 lañ ko fal le même président 2011 le président Baba Tania, ci télé yëpp la ko wax moo ko jox foofu douze millions douze millions yooyu après sept ans après la ñuy doog a yëg douze millions yi ci président boobu mooy ku nga xame ne euh, ci Covid bi moom lañ jox mu dem jël cinq million waroon ku nekk ci situation bi nga nekk mu yónnee la fa benn dix mille francs préféré def loolu ci rapport AFNA la ñuy door a yége ne deux millions génn na président bobu ci ay manipulation ci si lay défé ñuy dem ay levée de couleur palais de la république muy manipuler ba nga xamné nit ñi mu yépp Dakar lañ dëkk président de la république bu ñëwé di nuyo mu la ci la xëyee Tamba ci la xëyee Nangam ci la régions Sénégal président bobu président bu ñu am. mooy président bi nga xam ne levée de couleur boobu bañ ko joxee koppar ya moom li mu ci li mu ci fas ne mooy ministre Matar Ba à l'époque moo fi ne def ñu doon jël gurgur ñu dugal ci ay oto ne dañuy dem di ko topp ay Fatick di dem fu ne mu ne xaalis boobu ci loolu la ko dugal ça veut dire nit am na loo xam ne aussi su demee bu ëpp il faut a dire. Ce n'était pas le moment. Nous sommes ici, dans les médias, de voir. joueurs départ, nous sommes venus à Nous avons gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Mais aujourd'hui, qui vous disiez, nous avons fait plus de 20 ans, nous avons fait 15 ans. Nous avons fait nous avons le deuxième meilleur supporter du monde en Russie. muy commission culturelle bi nga xam ne depuis dix ans depuis vingt ans ñooy diriger batteuru douzième gaynde tey nga bàyyi leen fi yemoo ci loolu commission boobu moo dem ci coupe d'Afrique bi gagné coupe bi ñëw nga bàyyi leen fi ne duñu dem Côte d'Ivoire loolu su amee sax tey doon loo xam ne dara ñun li ñuy sonn ci Sénégal bu dee man sama cas voyage de ma def voyages cinq voyage la man douzième gaynde ma sa total et entier. ça veut dire que les 47 voyages que j'ai fait yop soit man ça m'a sama billet ma poche bop, wala université Gaston Berger d'agal ma billet voilà ma am ay partenaire ku mel les gourdes ici, voilà wala Kalidou Koulibaly wala ñeneen ñu dagal ma billet man ma parce que man li may gëm toujours y a un plan mais y a un plan man loolu laa mos a doxe li ma gëm mooy fii Sénégal dem pour supporter man damaa jàpp ne du ma xaar kenn pour dem ci lii nag ñun actuellement boolewuñ ñu ci deux cent billets lañ joxe yéen sax collectif bi am benn sens ñu jox leen dix. nag joxuñu un ci ci ci.

te ñun on au nombre de cent soixante dix personne yoo xam ne nii lañ ñu liquider ñu nar a toog fii pour seetaan ko ñun nag fasuñu yéene baisse suñu ay loxo li ñu fas yéene mooy déjà ñun yoonu Côte d'Ivoire def nañ ko man jóge fii dem ba Côte d'Ivoire ci oto ñun pourtant commencé nañ cotiser parce que gis ngeen récemment entraînement équipe nationale bi nga xam ne moo nekkoon match Sénégal South Soudan suñu poche ñun ñoo cotiser suñu bopp dem entraînement bi ñëpp daam ñii fuñ jóge ñu ne déedewaay bi may jóge Arabie Saoudite man benn doomu aadama kot yàlla def ci Afrique ba mu daj ma doon supporter boo xam ne joueur da koy invité ci clubam muy Kalidou Koulibaly ba ma demee Italie dama koo rajaxee

man tey jii euh, euh, euh, roi laa woon foofu fu génn c'est autre chose al hilal, nga xamné boy booy sen entraînement tu payes beaucoup d'argent pour dugg ci entraînement bi la la wax man ñu mën ma accueillir tous les joueurs la staff le coach di ma béggee yamuñu foofu ñu lo ma fi président al hilal di tok ma dem ñu jox ma micro central stade bi may wey dëbbe ñepp topp ma yow réew mi nga dëkk réew mi nga juddoo réew mi ngay sonal ñu lay tëj ay kaso ay ay ay ay ay Égypte réew mi nga bokk association bi la bokk di la mo di monter ay nit ñu lay agressé association bi nga bokk ngay dem ay final ñu gis la di di jël mbaxana bi nga xam ne mooy sa chapeau sànni xeer ci oto bi nga nekk ba oto bi ci bi toj paraprise bi toj xeer bi ñëw dal sama kaw saa à ngay ñëw pour supporter ñu ne doo taxaw fii di la bundu xatal fii laa jógee dem fi nga xam ne moo di Ghana ñu invité ma ma dem andir association bi dix mille dix mille dollars ci humeuram moom mu geddloo association yi dix mille dollars ñoom Eto'o di ñëw fii Je suis cible parce que dama dem Qatar avant coupe du monde pour dem visiter Qatar parce que tous les mascottes lañ invité mais information bi mon bam ma man dama gis ci télé bi Sénégal lañ information yu c'est-à-dire depuis bañ fi nga coupe d'Afrique manifestation bu am moom day woote parce que boobu gagné nañ Coupe d'Afrique gis na ne sénégalais yi soxla nañ léegi affaire bi ñëpp ñëw nañ engouement bi am na léegi nag mu doog a teg ay birigam léegi lu xew du woo kenn maanaam téléphone lay wootee pour mobiliser ñun du ñu yëg ñun président boobu lañ am ñun mu def fi seize ans fukki at ak juróom-benn ci seize ans yooyu. Ben mandat électif la fi am Ça ñu waré dem ci assemblée générale suñ ko ko waré wax lu muy def moy day teug ay soirée fictif c'est-à-dire day ne dañuy jouer ak Wally Seck soirée pour am ay moyens wala dañuy jouer ak Youssou Ndour soirée pour am ay moyens mais lool da koy def mais c'est fictif légui ñep da len di dugal ci ben bain de d'organisation or que du doon organisation léegi day dem ba nga xamné Coupe d'Afrique des na diggante boobu un mois mom moy monté wat ay nit woote ben assemblée générale ñu voté ne ko xeju fi mu koy dàq bu à trois reprises wala quatre reprises lolu moo tax ñun à chaque fois dañ doon dénoncer ci biir groupe bi nga xamné moy groupe WhatsApp bi je suis a dénoncer sa gestion ni muy doxalee man def un an la gis ne lu fi ko mu ñuy dem Côte d'Ivoire Je man dama bëgg règles de l'art Dina recevoir à l'université Gaston Berger ni ngeen toll yéen ñëpp yéen ñëw ma leen di yor naan tout université bi yi textes nous avons 72 heures, nous avons fait un Je suis allé avec le recteur, nous avons mobilisé les professeurs, nous avons posé des questions à 12 heures. Pour nous dire que le problème est que nous avons voyagé. Nous avons basé pour le taxi. Le taxi est venu pour le taxi. Si nous avons des soldats qui ont un taxi, validez le taxi, il faut dire le taxi est dingue. Parce que nous avons arrangé. C'était en 2014. ba fii may wax ak parce que amoon na ay limitation de ay nangam nangam mu xam ne lii sax arrangé wu ko mu ne texte yi dafa réer booba ko fii loolu amul ma leen di wax ne aussi moom biñ ko falee bu dee 2012 la wax 2013 la doog a dem ut récépissé douzième gaynde ça veut que moom récépissé bi mu fekkoon bu douzième gaynde bi da ko ignoré laaxu ko dafa dem Wat, benen récépissé bu bees mom ak yanaamaar ñoo jotandoo en 2013 te bobu mom mu ngi réclamé né 2012 lañ ko fal kon ci ban récépissé lañ ko te pour dem jëli récépissé wu 12 ème ngay né, wala nga dem copie littérale récépissé 2013 mo ci né. ci association bo xamné def na vingt ans 20 ans 92 2012 ça fait 20 ans

ñun ñooy doon victime bi bëgg a taxaw si ñun ñaar ñii ne wéy dañoo dem Égypte ñu jox ñu dix million dix millions yooyu dañoo ñu jox ñu dix millions dix millions yooyu ñu séddoo te dama ne euh, douzième gaynde déplacé wu na fi ba taay Ablaye Wade moo leen jëkk a jox trente millions suukaru koor suukaru koor ci biir palais bi lañ ko séddoowee yaa ngi dégg suukaru koor te moom boobu moom moo ngi leen mos a jox dañ koy mais y avait y a un problème ñun yàgguñu man a faal 2012 lañ ñëw mais yàlla mooy dogal nit day ñëw yàlla am lu mu yëkkati teg ko ci loxoom parce que place yor am un jour viendra da koy bàyyi da koy yàlla moo ñu def lim ñu def léegi nag loo gis dañ koy organiser mais tey jii bu ñu demee foofu ñu ñëw ñu jox ñu dix million man bi ñooy bi ñu may signéloo papier blanc lañ teg ma joxe sama carte d'identité signé ñu jox ma faal signé ñun ñaar bi ñu génnee ñu woo six yi demoon yëpp plus moom muy sept moom nekk fa woon parce que daa jëndoon ñu ne léegi xaalis bi lii lañ ñu jox man sax nee naa ko Seydina nañ yóbbu nañ yóbbu xaalis bi jox ko mu séddale ñu ko comme ñun ñoo nekkoon Égypte parce que loolu la ñu wax dañ ne lii président moo leen ko may yéen ñi demoon Égypte yéen ñi demoon Égypte lañu wax les yi ne kon loolu la wax nañ ko séddoo wa ANPS yi fa newoon dañoo séddoo waa Ale Gaza dañoo ñun ñu def loolu seddu ko ci mom mais mom limu def pour manipuler ñun ñaar yépp la seppi de ñeneen ñi jot seen xaalis yépp ñun ñaar la seppi ak ñuy wax yaa Awa Badiane ak Iba Dieye mu bind ci ben message envoyé ko Sénégal bi yépp ne 4 membres du 12e gaynde détourné 10 millions xam nga bu bindé loolu envoyé ko dem fay ala une bind si nous tour la ci balé ala a bi 4 membres du 12e ont détourné 10 millions 10 millions yo 7 personnes ñoo ko pourquoi nga bokku appuyer 4 membres y compris yow yaangi bir ça c'est lâche voilà personne bobu lañ jakarlo ñun nak pour dem Abidjan dañuy le président de la république di wax dëgg fa yàlla boole woon nañu ak secrétaire général am ñu waxtaan ak moom ne ko ah ñun day jàmm rek moo ñu tax a jóg fu ngeen ñu wooy si jàmm ñun pare nañu mais waxtaan bi fekk ñaari parti yëpp bëgg ko ñun buñ bëggee to parti bee bëggul jàpp naa ne mënta ne depuis booba bu fii ñuy wax ak yéen Issa Laye Diop moo la gën a xam ne ñemewul def ak ñun face à face parce que ñun ñuy wax ci xàq yi xa lañ ko teg ci dëgg lañ ko teg waxuñu loo xam ne dañ koy trafiqué yaa ngi dégg loolu moo tax moom a chaque fois buñ ko wooyee pour négociation du mos a nangoo toog ak ñun ñun nag bu léegi ñun tooguñu mën naa ne directeur haute compétition bi man bi may nekk Arabie Saoudi woo na kii kii tamit ne ko ñun du mën ak Bakhoum kese parce que ñoom liñ bëggoon mooy nañu coppet ñun ñaar yóbbu bàyyi mbooloo mi fi nekk te commission culturelle bi defe naa ne instant bi ci barki démb bi leeral na lépp ñun ñoo def suñu ay moyen wu bopp o cotiser suñu bopp ñoo yóbbu suñu bopp malgré que bi ñu demee que nañ moom mu joxe consigne ci bunt bi ñu ne commandant bi nee na douzième gaynde bii na consigne bi yàlla dimbale ñu tamit ñu woo ay supérieur commandant ba yàlla dimbale ñu loola daal di suñuy matériel dugg waaye bi ñu duggee euh, il faut ngeen comprendre benn affaire lan moo lan moo andi ñun ak collectif lan moo andi tey les iltra ci stade yi les ultras boo déggee naan les iltra les iltra à chaque fois ci ginnaaw camp yi la ñuy nekk ginnaaw camp foofu la iltra di nekk Nous fait de façon ultra avec les clubs on est derrière les camps Une fa que gis le but de bi ñun parce que bi muy avons une minute nous muy avons une minute lañ def appel bi nga Nous ne Nous suivre corner avons ñu ñëpp suivre corner ci la bi fan la duggee suñuy camp ñoom bi ñuy jubile kon nit loo loo tarbi yu mokkal ko ñun tey terrain yi ñuy dem si àdduna bi mën nañ servir lu bari mais même boo ko bëggee def maanaam day nekk nit bi nga xam ne da koy bloqué day bloqué yow sax ay initiative ay typhon man ñëw naa créer fii typhon boo xam ne dañ ko waroon di def si stade mais biñ ko bëggee def il a bloqué c'est-à-dire moom toujours Google nit ki nekk au devant de la scène Mon dem na ba léegi gis ngeen ay masque lay yor ak ay mbiip ak dina wey sax da koy debbe légui dafa manam maanaam yam doon ki mais légui dafa dugg sax ci ay wongeen tok ay def lu né pour exister kon c'est ça la personne c'est ça le président qu'on a vraiment

dë mandats la def léegi nag deux mandats yàlla na ko yàlla may deux coups loolu daal mooy loo xam ne moom laa am français de waaw assemblée général bi non loolu ñu ñëw koy wax